wajilaalatun te ak tegtale la xalal xëyri ca yiw wa bi ishaaratin ci ak junju latifatin guy aji sew nee na lii bu ko seex sax Cheikh Saadu Abi si waxee day laabire xeetu yonante bi bëgg leen a xamal lu baax fa mu nekk ndax ñu dem fa wuti ko fa te mooy rek sëñ bi yàlla def muy buntu yërmande ñu dem fa wuti fa yërmande yàlla waqaala waxoon na it fii xasiidati tahniati ci xasiid ak ndokkeel ga lamma rajaxa ba dellusee acheikhu sëriñ bi minal xëy ba tukkee ca tukki ba almubarakati bari biñ barkeel baxda anistashhada ca gannaaw ba mu sàkkoo seere xala amrihi ci mbiram bi baytin ci aw bayit xadim muy aji yàgg waxoo moom bayit woowu nag mooy xalafa giñ na azamaanu jamono ne laya ti yanna dana andi bi mislihi ci am kemam ma ne ko xanisat teeñu na yaminuka sa ngiñ yaa zamaanu yow jamono fa kaffir say boo kaffaara am na xasida goo xam ne nee na bi sëñ bi ñibbisee bàyyi ko ci tukkib géej ga la ko Cheikh Saadu Abihi yónnee sëñ bi di ko ca ndokkeel waaye nag am na baydu woo xam ne koo indi ci njëlbeen ga bokkul ci ay waxam dëgg-dëgg baydu yàgg la waaye woo kooku da caa waxoon ne jamono day mi ngi waat ne dana indi ku mel ne kii waaye ma ne la jamono yow day sëngiñ tebbiku na ba noppi alaman bañ wara tek ku ngi ñum tebbu ko day sey bo dal di koy def ta xamne su ngi lolu tebbu ko na fa nopi ndax do mëna andi ku melni mom da bëgg wax ne ku melni sëriñ bi amati bokku na ci yi faat kon bu fekkon ne jamono da waat ne dana andi ku melni mom sey bo mom jamono mu xam ni ngi ñum tebbi ko na mu dal di def alaman ba nga xamne ku ngiñ ci yalla dem ko alaman ba nga wara def kon sey bo jamon def ko fi sa sa taxam ni ngiñum ko na waqala dem wax nak aydan batay ne ma ho ay mbella mom serign bi ajlatu wuñu nako min ha ca ñom an nasara nasaran ya, fa asbahat mu xey daran di wurus fi tilkal buhori ci yele geej señ bi da melane wurus wu nek ci bir mbell ma kenn gasu ko génne ko bañ xam ne wur foo mel bi tubaab yi jàppanteeg moom yóbbu ko ci tukki boobee nag dafa mel ne ca lañ ko bañ xam mooy kan bu fekkoon du mën naa am sëñ kenn du xam waaye nee na day mel ne wurus xaalis woo xam ne fa mu nekk kenn génniwu ko ba di ko gis ba xam sëñ bi nag noonu la meloon waaye naka tubaab yi leen teeg moom rek ci lañ ko xamee ci dëgg-dëgg mooy wurus piir piir nga xam loo ko xamb xamb ak piireem day gën di feeñ wurus dëgg-dëgg bala nga koo xam da nga koo xam ba ca taal ba ba mu xong ba soy ba soy ba soy ba xong ca la ñuy xàmmee wurus wu piire ak wu piire wut sëñ bi nag fi tubaab yi jaar ak moom noonu la mel ci moom ci lañ ko xamee muy wurusu ngalam woo xam ne amul moroom wa badaate mu feeñ min sadafil baxri tukkee ci xoru géej ga al muxiiti gay aji wër falxu yoonu bët ya xuyaaraa way gëlëm lañu min tala lu yi ci melxateem nga fii ci moom bi sëñ ne pël bàyyi ko ci géej gi daa mel ne wurus wu nekkoon ci biir xorwa jekki-jekki ne pël ci bitti rafet rafetaay boo xam ne bët yi buñ ko dee xool duñ ko mën a xool bu baax a baax ndax rek rafetaay bu ëpp doole kàttanuk gisug bët ya wa badrun te weer la muniirun wuy aji leeral xaaba woo xam ne suuxoon na fil bi ci soow su topp mu feeñaat mil xar bi ci sowu samsan mbir muy ab jant rif xatan ci yëkkatiku wanti shaaran ak ci tasaaroo suma laaxa minal xar bi moo doon cosaan waaye way wee tax nga jàng suma laaxa mil xar bi nee na sëñ bi daa melan ne weer ba mu fi nekkee te demagut ca tukki ba ba mu demee mel ne weer woowu daa suux waaye ba mu nee pëll dellu ci nag daa sotti jant boo xam ne dafa tiim léppi àdduna dara ak njariñam tasaaroo fépp ci àdduna kon ba muy dem weer la woon bi mu see soppiku jant fa xujj bii sama yéem li kiimiyaa imtihaanin ñeel na mbootum nattu xadaa ku xëye na bihaa ca moom noddaarul waraa wurusu mbindeef yi yaaxoot atan di wurusu yaaxoot laa tubaaraa wow deeful rawanteeg moom ne man day ci yéemu naa lool de sëñ bi bi ko yàlla nattu te nee nañ góor moom buñ ko nattoo ca la ñu koy yëkkatee ca lañu koy daaneele sëriñ bi bi ko yàlla nattoo awale ko ci loxo yi ay noonam daal ba mu génn ca nattu ba ci la ñu xamee ne jëmma ngoog ju amul moroom wurusa ngoog wu amul moroom fa yaa xajaban maa ngi yem kiimtaan baabul mataa bi buntu tuub ba mu fattaxun lu ñu ubbi la li kulli muridin ñel bépp taalibe raama bopp sàkku na min fu ci moom jiwaaran ak làqu wala ak dëkkaale ne man day yéem naa loolu yàlla xam naa ne day taalibe boo xam ne buntu boo làqu rek nga doon wut day xamal ne buntu tuub ubbiku na buntub yërmaande ubbiku na ci bi sëñ bii dellusee say boo dem làqu ca buntu boobee xan yi an maa ngi ndokkeel ak ndokkeel li sa diini ñeel jële diine alxarib ji aju tumuranke àllësi ji nga xam ne xadaa xëy na yettiixu di puukarewu sorooran ngir mbég min kum ci yéen waf ti xaaran akuk damu nee na maa ngi ndokkeel diine ndax diine day tumuraanke woon na lool waaye bisañ bi ñibbisee day diine dafa yëg bam bay puukarewu ak a damu ndax rek bégg mu bég ci sëriñ bi baxin eskay baxin eskay ak réew kaawteefu tedd nga bixi ci moom min waliyin ci waliyu naasihin wuy aju laa biir laa ya xushu kok du wor wala yu daahinu tey du naa feq suñ mat laa min dane eskay eskay waliyu laabiri laabiri nga ko xam ne day amul tiaxan du war du nafiq day xam deug rek wax ko wa hazaki kii moy wali yàlla wa al shaykh al mustahinu te moy cheikh mustahin al kumlayliyu qaala wax na axoonaa sun mbokk fillaahi ci yàlla wa fi cheikhi ak ci serign bi al-hajj muhammad abdullah ibn hubayd hubaydirahman fi kitaabihi ci téréem ba an nafahaat al miskiya fi siirati al mbakkiya lamma sa ala balaajee an nasaraani yu nasaraan ba kàppulaani kàppulaan kàppulaan nag moo njëkk a toogal France foofa ca Mauritanie aha danaa yal nanu musal allahu yàlla minhu ci moom wa min charrihi ak ci ayam ba mu laajee a cheikha siidiya cheikh siidiya xan xukkumi jihaadil muslimina walis atteb jihaati jullit ñi li nasara ñeel nasaraan yi fii hada zamaan ci jële jamono hal huwa ndax moom jaa isun aji dagan la am laa wala déet li anna nasara ngir naka nasrani yi laa yataharradoona duñu gaaral ma duñu saflu lahum ñeel julit ñi fii diinihim seen diine maxa quwwatihim ànd ak seen katan ñoom nasrani wa muslimina ak doyri julit ñi wa ajaabaho te mu tontu ko bi maa ci la nga xam ne tontu na ko wa sallama te mu tontu la a cheikha saxda abihi cheikh sahdu abihi wa aradaho te mu ko xale yi ci yuridu ngir moom dafa bëgg ay yu sallima mu jébbal ko Cheikh Ahmadou Bamba fakatabum bind huwa moom ay a Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Bamba maa loo xam ne nasoo ya xam ba mooy lii maa la nga xam ne kataba huwa bind na ko a Cheikhaani ñaari sëriñ ña mutawajjihun aji jublu la ilal awliyaay jëm ci wàllu yi ya wal xulamaay ak way xam ña allazina ña nga xam ne yukaa bi doona danañu jànkoonteeg xayrahum ku dul ñoom واما كاتب هذه الحروف دال اجي بند يلي عرف جحله يالنا كو دولي ديف الله يالا تعالى كوينا باب الشهاده مي بونتو تخه والبشاره اك ديك والمعروف اك جيك فلم يتوجه جبلوت الى جيم سي شيء دارا من هذا جلي لانه غير نكا موم فرخ نوبنا من فتن الدنيا في فتن الدنيا والاخره اك الاخره حاما كاسشين تي اتوم كاسس فلولا فراخه بونكو نك نوبم min nit dunia ci fitnay àdduna wal axirati ak alaxira la ataakoon mu dikkee bi jawaabin ci tontu taalis lu di aj ñetteel walakin waaye moom saara mujj na mi mën di bokk ci ña nga xam ne xii a waxee foon na fihim ci ñoom ne bal li fi nekk ah yaa un way dund lañu inda rabbihim fa seen boroom yursaqoona def na leen wërsëgal katabahu bind na ko qaa'iluhu aj waxam ja ahmad ibnu muhammad ibni habibillah xasamahu yàlla na ko dollee musal allahu yàlla taxalaa kawe na Wakana, te yalla dole nek la ho ñal ko wa tawallahu te mu dole ko fete wo daane subhan rabbika du famu yam serigne bi talif an nafahat al miskiya fi shirati al makiya da wax ne tuba bobu ñu wax kapulande da joon cheikh shirye ne ko waw jamono ji nga xamne julli ñi dañu neew dole te nasran mom bari dole tayit da mel nasran du yàqal julit ñi seen diine xanaa kay seenum réew mbaa seen koom-koom rek la ñuy jéem a nangu waaye aay wuñ leen seen diine ndax nah. mu ne ko nah damay laaj nag ndax jamono ji lan mooy àtteb julit ñi jóg di jéem a jihaat ak nasaraan ndax lu dagan la wala deet loolu laay laaj ba seex sidia bindee tontam ba àggal daa jël tont la moom seex sidia jox ko seex abihi bëgg cheikh saxdu abihi mom itam bindu tontam ci lolu ñu boole nak seen yaari tontu yi ko cheikh ahmadu bamba bëgg mom itam mu tontu muy ñetteelu tontu bi señ bi gisee nak yaari tontu yoyé muy tontal cheikh shidiya ak tontal cheikh saxdu abihi nak le señ bi bind li señ bi ne ñaari kilifa day lañ wax moom lañ wara wax ndax borom xam-xam yi ak wali yi nga xam ne ba aduna la leen yàlla atte ñoom sañ nañoo wax ci lu mel nii waaye man nag baa demee ci tukki ba ba dellu si ci atum kasas yàlla dama limaale tut ci waa aduna. yàlla dama limaale ci waa àjjana nga xam ne sama jëmm mooy feeñ nii ci aduna waaye man ci waa àjjana laa bokk damaa bokk ci shuhadaaw ya nga xam ne suñu borom nee na bal ahyaun inda rabbihim yurzaqoona ca ñooñu laa bokk moo tax nag lii sañu ma ci wax du saa mbir ñeena ñoom sañ nañ caa wax loola seen mbira loola ci sëñ ba tontu sëñ bi daa yàgga leeral ne fi mu jaar mooy ak deexam dee na ba dekki isaab nañ ko ba àggal duñ ko isaabaat bu ëllëgee moo tax mu ne woon bu ma ab taalibe yotati alal te fekk mu amee bor mbaa lu koy nuru ndax yàlla xisaab na ma ba noppi te bëgg ma bu ëllëgee muy xisaab keneen di sama jëmm ji tax loolu nag moo tax mu tontu lii samitu dégg naa a cheikh sëriñ ba al mustahin te mooy cheikh mustahin yaqulu muy wax ne inna haasa naka lii xaqun dëgg la walaw kaana doonte nekkoon na xayra xaqin di lu dul dëgg lamaa katabahu kon du ko bind cheikh cheikh mustahin mi ngi door a dikk cheikh mustahin nag bi mu gisee lii sëñ bi bind dane sëñ bi nii mu bind noonu la ame su amee wutoon noonu du ko bindee noonu du ko waxee noonu kii jàng nag bu agsee foofu mu xool li tàmbalee ci wa ajaabahu bi ma ajaabahu ba ci fa katabahu ay a cheikhu ahmadu dese naa leerit ba xam ndax cheikh sidiya baaba ba mu tontoo moom ci boppam moo yëkkati tont la jox cheikh saadu abihi ndax mu tontu moom itam walla wala ni moom moomu la nga xam ne moo doon laaj cheikh sidiya moom la cheikh sidiya jox tontam mu wëlbatiku nag moom joxaat tont la cheikh saadu abihi ñu door a wan nag yaari tont yooyu sëriñ ba dafa am ci téere bi ay béréb yoo xam ne noonu lay demee boo dee xool baat yi damu mu tegaloo day mel ne ci cosaan borom tegalewu ko woon noona xeyna na fuñ ko soté rek soppi ci dara sami atu dégg min cheikhina ci sunu serigne al bashir ibn cheikh al xadim yahki kii muy nettali hani cheikh al mustahin jële ci cheikh mustahin qala mu ne taxa jëbtu min amri cheikh ci birum serigne bi jalasna naa nanu ma xaw ànd ak mom maratan aw yon jamaahatan bir mu ni mbooloo minal xulamaa ci way xamni ñi wa adunnuhu danaa ko jortu qala muy wax ne fihim nek na ci seen biir abdullahi ibnu mukhtarina alhajiyu fa sharaxate mu tàmbali moom sëñ bi yatakallamu di wax xale naa ci nun bi kalaamin ci wax yabharu jog dana gëlëmal alxuqoola ya. wa mun sharihoona way ubbiku ay dënd lanu musaddiqoona way dëggal lanu wala xilma te deetu xam ñeel bi xaqiqatihi ci nayirin wax ji aji leer kon bi nayirin yaxusu tudd day jàpp bi majaamihi naa ci dajew gaa yi sunuy xol fa xalim naa nu xam rek ni annahu naka moom minallahi tukkee na ci yàlla sëñ Basiru ne mas na maa dégg Cheikh Moustahin muy nett li mu ne man day sëñ mbiram yéem na ma ndax maag am mbooloo ci boroomi xam-xam mas nañ faa toog sëñ Basiru ne yaakaar naa ba mu koy wax sax nee na Abdullah ibn Muxtaari naa ca la bokkoon Cheikh Moustahin ne sëñ bi tàmbali noo wax wax joo xam ne daal na mu yéemee day na waar xel mënu koo takk karoot te xam na ne moom dëgg la nangu nañ ko bu wér tam ci suñuy xol waaye ci dëgg-dëgg mënuñu koo xam bu wér wér nu xam ne rek kon day lu bàyyi ko ci yàlla awee ci sëñ bi ak si ci noonu rek waxaale wax na axoonaa sunu mbokk almadkoor ka di kuñ tudd fii kitaabihi ci téeréem ba almadkoor yi ba di kuñ tudd ne wa min karaamaati haada cheikh yi bokk na ci karaama yi bi li sëriñ xafisaho yàlla na ko doolee wattu allahu yàlla rujoohu foo dellu séem nga min tilkal jasirati bàyyi ko ci boobale dun allati ba nga xam ne lam yar ji mësta del si ahadun kenn jaxalatu kook defoon na ko an nasaraan nasaraan yi fiihaa ca moom bil mushahadati ci ak jàkkaarloo faqad taraxoo sàñ nañu fiihaa ca dun boobee kasiran lu bari mina naas ci nit ñi wala ji te dellu si wut min hum ci ñoom ahadun kenn wa dalika loolee aqwa mooy gën jaa dëgëri tegtal xalaa am na zahabahoo ci naka demam nga bixtiyaari yi nekk na ci ak coobare woom cheikh alxaaj mouhamad abdullah ma taalifoon an nafahaat al miskiya daa wax ne bokk na ci karaamay sëriñ Touba yóbbu gi ñu ko yóbbu foofe ba nottu nag mu dellu si ñëpp gis ko xam ne kii jëmm ja demoo na ndax tuba bi kat yóbbu nañu fa ñu bare bari te nyogis. ñoo gis kenn ci ñoom dellu suñu tek ci bët ni ki moy ka demone lool nak neen tegtal la ci ne ak demam ci ciowarem la waye bu bëgg toona dem du dem lool nak moy li wér sëñ bi ci bopam mo sakku won dem nga fofé ndax man fa wétal boromam man fa liggéeyal boromam lam ko bëgg liggéeyal ba dégg anna cheikha naka sëriñ ba al mustahina ibna talxata al kumlay liya xaala waxoon na ne innahu naka moom law shaa doonte bëggoon na xadama zahabi ñàkk dem nga lama qadaroo kon duñu àttan xalaa ixraajihi ci ak génneem min ardihi ca suufam sa wa kafaate doy na bii ci moom siqatan ci ndëgër laay nee na cheikh mustahin nee na sëñ bi day bëggutoon a dem tubaab yi duñ ko mën a yóbbu te mu ne moom mi wax loolu nag doy na sëkk ndeur lay moy doyu seuk ku wéri wax ko xam lu wax ñepp nang ko mbaa bok ña xam nang ko wa kataba bind na ko a cheikhu serigne bi nasihatan ab laabire bab tudde won nako diyafatul quddusi nganalek yàlla mu sell mi wala ya te du fon raihataha xetam ga day iblis ganu iblis nee na cheikh mustahin moomu sax sëñ mas na koo bindal ab laabire tudde ko diyaafatul quddus wala yasham raihataha dayfu iblis sëñ bi daa tudde laabire ba nga ne gu sell gu bàyyi ko ci yàlla goo xam ne iblis du mën a jaar fenn ba fuuntu xet ga waxuma la di ko mos xet ga képp du ko xeeñ moom iblis wa kaanu nekkoon na yazuru di siyaare a cheikh sëriñ bi min bàyyi di fu sori raajilan mbir mu muy aji léeru léeru mooy dox ak tànk way baate muy bañ ak damaalihi jàpp alali sëriñ bi wa isa ak taaxu ndem jox na ko bisaatan ab tappi kaana ba mu nekkoon na yu sal yi du julee xale ci moom yaqusuhu dana ko jël wa yadumuhu tem koy tàpp ilayhi jëm ci boppam wa yataxafasu tem watandiku xale ci moom nee na daana bàyyi ko fu sore sori di siyaari sëriñ bi te du nangoo war tànkam lay doxee bu dikkee bu ko sëñ bi joxe alal Dunang ko jël alal bu ko señ bi joxe leneen luñu barké lo melni topi nak bu mu daa julee mom señ bi da koy fonk lol mom nar bobu di taf ci yaram bopam bi di fonk lol lol du nangu dara tàggale ko mom wa kama qala niki a cheikh serigne bi al mustahinu Batay xala la waxe rek abo muhammad al kuntiyu cheikh abo muhammad al kunti al ma'ruf kadi kuñ xamé indal hamati fa mbolo mi manam fa sura balisi bi buukunta ci buukunta fii njaasaan ci njaasaan xurba tiwaawan ci wetu tiwaawan xaala wax na bax du asxaabi naa lenn ci sunu àndaale yi mooy lenn ci sunu mbokki taalibe yi fekk ataahu di na sëriñ boobu yazooruhu di ko siyaare xaala wax na al muridu taalibe boobu ne fa sa ala ni mu laaj ma xan xaali cheikh yi walis mbirum sëriñ ba wax ma te fekk na moom aalimun aji xam la bi xëybati yi ci tukkeem ba قال ما وخ لي نيل ما اين شيخ انا سرين بي فقلت ما وخ له نيل كو نكو ذهب دم نبي اك موم النصارى نصراني قال من ما لا ديريت قلت ما نكو فما كان انا لو ام اذا بوك قال من ما ذهب دم لي يخدم غير مو لغي هاي سو تطيب فوفي خم دنا تاي بي موم الخدمه لغي با قال المريد طالب بي ني وانا تمن في مجلسي سما جتاي بي اسمه ماغي دغ رطانه قومين lëbb lëbbaluk baati ay nit laa yaxrifu duma xam mi maaja la nga xam ne yaquluuna danañu ko wax shay an dara xaala mu wax lii ñel ma ma ataarifu ndax da nga xam luxata haulaayil xaw mi waxi yi nit làngu ñi lay nit xultu ma ne ko laa déedéet xaala mu ne ma li annaha ngir naka moom lay sa déet moom bi luxatiku muy seen waxin muy seen làng wa dalika loolee li anna cheikha ngir naka sëriñ bi xam la xëybati ci njëkk tukkeem bi daraba sadd na maanaam samp na suuran ab làkk ala haadihi albilaadi ci lay réew fala ahada dit kenn yanaalu di am fiihaa ci ñoom dëkki réew mi tilmiisan ab dongo xataa yi atiya mbate mu dikkee moom sëriñ bi wa anaate man xadit taxastu jàpp naa asxaaban ay dongo min waraa i suuri yi ci gannaaw làkkam bi falaa yati du dikk asxaab yi samay àndaale muy samay dongo ba ba'da shahrin dara ci gannaaw weer aw shahrayni wala yaari weer nee na ku ñuy wax abu muhammad al kunti yi te nit ñi xamee ko ci duukunta mu nekkoon foofee njaasaan ci wetu tiwaawan ba tey nee na am na lu mu seere woon ci sëñ bi te loola mooy kenn ci sunu mbokki taaliba yi ne damaa dem di ko siyaare mu ne ma waaw ana sëñ bi fekk na moom booba xam ne ne sëñ bi moom ma nga ci tukki ba waaye teewul mu laaj ma ko ne waaw ana sëñ bi ne ma ne ko ah sëñ bi di tubaab yi yóbbu ya ko ne ma déedéet yóbbu ya ko de mu ne ko ah loolu kon lu am bopp mu ne ma sëñ bi ci boppam moo demal boppam di seeti béréb bu neex a liggéeyee ndax mu liggéeyal fa boroomam taalibe bi ne fekk fa ma toog nag maa ngi dégg ay nit ñuy wax wax joo xam man mënu mu mënu mu caa xam dara bu kuntane ma xam nga waxinu xam nga gaayoo lu ñu waxa mu ne ko ah déedéet mu ne ma waaw ndax seen waxin du seen waxin daldi ma ne ñooñu samay taaliba lañu te dañoo bàyyi ko fu sori ndax sëñ bi laata muy dem dafa samp am làkk boo xam da ko wërale réew mi benn sëriñ mënu fi am dong ba kera muy ñibbi si moom sëriñ bi moo tax nag man ma génn làkk bi sëñ bi làkk ba ci bitti nag ma amee fay dong ñu ñëw di ma fekk si nag nga xam ne ñoom fa ñuy bàyyi koo jëm si ci man bala ñoo ñëw daañu am ci yoon yi weer mbaa weer wa min ajilla shuhadaa yi bokk na ci way màggi way seere ña li cheikh yi ñeel sëriñ bi alxalaamatu xamaakoon ba at taabixu kay aja topp sunna a cheikhu abdallah te mooy a cheikh abdallah at taamak liyu at daymaaniyu xaala wax na wa sadaqa te mu dëggal wa ahsana te mu rafetal ne alaa yëgal mil jengal ila daru salami jam daru salam wa tuba ak tuba ida khift ndem ragal nga min ray bi zamani ci jamono si xotooban ay bambu li tadd fara ngir nga tuufu min xaw ci zamani ci xettalu jamono ji bi nazratin ci ben xol rek tanaalu bob da nga bi ha ci mom husnal ma'abi rafetuk delu ci yalla wa tuba ak aljana bokku na ci ñi séral señ bi tay gaay yu bax borom xam xam mag mag bu top sunna bu tuddu cheikh abdallah at liyu bok ci wa dayman mo waxal ne bo ragale lu lay naqari ci jamono muy tiss muy leneen rek da ngay gaaw dem daru salam ak touba te serigne touba nek ndax bo ne jak serigne bi rek bu yalla fofu ngay amé defaruk aduna bolé ca aljana ëlëk jëf وهذان البيتان يعني, يعني بيت حفظتهما مقلنا لين من الشيخ يتسرين به نخ سألني لا جرنما هل تعلم دخل نغخم ببيتي حبد الله تنياري بيتي حبد الله قلت من يقول لا ديرت وما كنت تيت فكون نكمون أعلم ديكو خم فأنشدهما مسد لين فحفظتهما ممقل بإنشاده تصدمك وتحققت تمورلني أنه نكمم يشير دي جنج إلي جمجمان bi tasdiqi yi ci dëggalalam fii xawlihi ci waxam ja xaw si zamaan yi sëñ mat laamin dane ñaari bayit yi ci làmmiñu sëñ bi laa ko mokkale ndax sëñ bi dama laaj ne ma waaw ndax dégg nga ñaari bayit yi Abdallah wax sëñ mat laamin ne fekk na booba it dégguma ko woon mu ne ko déedéet dégguma ko de sëñ bi waxal ma ko ci làmmiñam ma mokkale ko ca waxam joojee ca nam ko nettalee te neen yaakaar naa ne sax lanaar ba wax ne li tàdd fara min xaw si zamaan yi lim tuddee sëñ bi xétalu jamono te sëñ bi bëgg léral ne noné mu waxé non la man yalla ma def muy xétalu jamono sëñ bi laminé neen defe na lola tax sëñ bi net lima bay di wa qaala wax al alxaalimu aji xam ja alxallaamatu kadi ab xamaa kon jalil kay aji shaykh abdullah ibn salah salahin tandaghi al buh bayni wala al alboox bii hin al shaykh serigne ba fi njaareem ci njaareem xasidatan xasida wa baytuha baytu xasida ga nag mooy la in fuqta giñ naa ne boo kawee kullal awliya bu axiran bi mu ngay aji yeex a feeñ ci àdduna fa xayrul baraaya ngën ci mbindeef it fil xorooni nekkoon na ca maasiya al awaaxir yi di way mujj ku ñuy wax abdullah ibnu salaax nee na ba mu siyaaree sëñ bi ci njaareem waxan na sëriñ bi xasida goo xam ne bayit wa ca gën a yéemu mooy su fekkee dangaa yéex a feeñ ci àdduna di féete kaw mboolem wàllu yi yëpp yëpp itam day noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa defoon ndax daa mujj feeñ ci mboolem yonente yi ci jamono yu mujj yi te gën mboolem ñi yàlla sàkk ñëpp ñëpp bu gënaale sax mboolem yonente yi ko jiitu woon wa cheikhu sëriñ ba abdullahi abdullahi haasami foofu moom allësi mooy ka nga xam ne xaala waxoon na la ñeel ko acheikhu sëriñ ba ni ko yaa abdallah haahunaa nekk na fii qasidatun qasida goo xam ne man xafidaha ku ko mokkal laa yasaluhu du ko laaj fii qabrihi ci bàmmeelam munkarun munkar wa nakirun ak nakir fa qaala te wax acheikhu sëriñ bi abdullahi tawa abdullah ne لا إله إلا الله أين هي أنا على من ممقشين جوجو فقال سرين بلكو عند محمد الأمين نكلفة محمد الأمين هذا مله فقال مدالي وخمو ناربنه والله جناجي الله لا أحفظنها دناكو موك الله أبنا أنا سني دوني غور ونساء أنا أكسني جيين وأبي أكسني جامي غور وإما أنا ak suñuy jëgër te mooy suñuy jaam yu jigéen